Euh, mag bu dee sa nit que ce soit Idrissa ou un autre doo ko yedd ci pénc hmm. loolu benn la ñaareel ba bu fekkee ni xëy na yàlla baaxe na ba ñoom ñu ko séq kenn ku ci ne ngay mën di diisoo ak moom euh, toog ci plateau di def yenn anal day xaw compliqué ah Serigne Mbacke non non non Serigne Mbacke déglu ma rek si si si si c'est la vérité pour nga wax ak ñun justement loolu tax ma ah, lay wax ma lay loolu laa lay wax xam nga li mu lu gaf mooy olof yi dañuy wax ni bu ndox tuuroo rootiwaat fa sës ndax ñi dañu ànd baax waaye baax amul njëriñ hmm. kon da ngay rootiwaat xam nga rootiwaat mooy lan muy Idriss Seck muy man muy keneen ak keneen ku nekk tu as le droit de dire que man dama bëgg a nekk candidat wu benn bokk yaakaar mënuñu ko reproché kenn tey on parle du cas a d' autres cas il y a d' yu nekk biir bennoo mais Mansour répondre dinañ ñëw ci cas yooyu Mansour dafa ne. Mhm. Euh, am na question bu. dowal euh, kii la ma protocole a euh, pas de protocole de de Conakry dafa ne Idrissa ak mhm. Macky Sall mhm. réeroowuñu tey ce matin beaucoup de responsables de Benno Bokk Yaakaar. ont rué dans les brancards pour attaquer Idrissa Seck. Mhm. yow lan nga jàpp. est-ce qu'ils ont raison de de de de de de l'attaquer. ce que Macky Sall ak Idrissa Seck réeroon nañu. dégg nga wax la ils n'ont pas raison attaquer nga lu tax dama tàmbalee léegi def nga ni ma danañ ci dellu si waat ma ma ma ma teg foofu baaraam Idrissa Seck ba ko Macky di fal tàgguwul kenn lan lañu waxante ba mu fal ko. fekkewuñu ko ña doon lire décret de nomination ba ñoo yow ñoo ci yem biñ ñëwee ba taxaw devant les micros lañu génn décret bi jox leen ñu liir ko vu continuer tant tant tant lui a été nommé tel ka nga xam ni ba ñu koy nommé fekkewu ko tàgguwuñu la nga dégg dans sa conférence de presse mu naan ba ma ko ba ma jiitee timis ma jiitoo ko gee nangam ak nangam nga xam ni donc même bu dul dara am na loo nga xam ñoo ko séq ñoom ñaar muy benn ñaareel ba may mun a kilifa boo ko bëggee jàppale doo ko wutal noonu parce que tey même bu sa demoon ñun dañu daw wuti keneen ku mel ni sa pour mu ñëw renforcer nos rangs donc ki nga xam ni même bu doon benn voix la am parce que un parti politique c'est quoi Amadou day am alal indi may Maymuna am mbooloo indi Sëñ Cissé am xam-xamam indi maître am xel mu rafet ba bu waxee ñëpp ne ah oui oui keneen ak keneen am ñu dajale ko donc kenn du xeet nit dans un parti politique surtout que ñu jëm ci élection boo nga xam ne si nous voulons gagner Benno doit avoir un candidat mu gagner dès le premier tour. mais c'est supportable. mais mais est-ce que ñoom. mën nañu nangu tey Idrissa Seck def conférence de presse. tourner en dérision dérision seen njiit Macky Sall ba mu neex ko ñoom ñu noppi en se disant que duñ ci wax. parce que xamuñu ñoom ñaar lu ñu lu ñu waxante. ñoom kay dinañ def seen devoir. de militant voilà déglu rek du seen devoir. si amoon na waaw ah, déglu ku nekk sa xalaat ngay joxe man benn bokk yaakaar laa bokk. amul benn nit laay jàppale au Sénégal c'est Macky Sall loolu leer na ko bu leerul keneen nit moom leer na ko mais man ki may jàppale. ma wéet ma wéttaliku li ma xalaat dama la koy parce que lii laa jàpp ne moo ñu jëmee kanam muy Idriss Seck muy Massamba muy ma dem ba képp ku nekk ci Benno Bokk Yaakaar dañu war a def lépp lu ñu mën téye la dans le cadre de Benno fexe ba nag Benno am un candidat et c'est là où c'est intéressant pour man justement pour man la c'est une proposition que je fais mooy la conférence des leaders de bennoo dañu war a toog daje première décision à prendre ñu d'accord ni sur le principe bennoo benn candidat lay am ñu d'accord ko mais tant que décidé wuñ ko en conférence des leaders kenn ku nekk bu la neexee jaar fee di wax mais bu ñu toogee en conférence des leaders ñu discuter objectivement ni pour telle et telle raison benn benn candidat lay am ñëpp d'accord ci ku ci tënkuwul bu boobaa nga xam ne bokkatoo ci ñun je dis sur le principe. alors je te fais part je termine. je te non euh, ci li ngay wax la euh, sànq dama dama tombe ci benn euh, échange sur Facebook et c'est Babacar Gaye qui dit candidature et rupture quand tout un pays n'enduit que pour la déclaration officielle de la candidature au sein de Benno Bokk Yaakaar aucune rupture syntaxique ne saurait être tolérée et bizarre vraiment bizarre venant de Zahra Iyane Thiam qui répond tant qu'une décision issue de la conférence des leaders n'est pas remise en cause, tolérer la pluralité de candidats à la et candidature voilà. de Benno Bokk Yakaar peut être envisagée, possible et acceptée. Et, et d'ailleurs, c'est une inversion de l'ordre des choses. Euh, euh, voilà, xëy na Babacar Gaye moo waroon waxee ni Zahra Iyane Thiam waxee Zahra Iyane ni Babacar Gaye tontoo ça dénote deux malaise bu ñu demee ba ba Zahra Iyane Thiam euh, di sous-entendre ne ah euh, tant que décision amul au niveau de la conférence des des leaders euh, parler tolérer la la pluralité des candidats à la candidature peut être envisagée possible et acceptée. alors mais Maïmouna Zahra li muy wax moom laay wax ni moom laay wax gis nga ay nit dañu ànd àndu nawle kenn du fi sëriñu kenn. kenn du fi jaamu kenn kenn du fi sangu kenn daf ñu neex ñu àndandoo jël benn kilifa mu tudd Macky Sall ñu mais yéen mais falu leen Macky Sall. waaw mais <laughs> mais ma ne déglul déglul bennoo ma ne bokk yaakaar même bu dee coalition la. coalition deuxième tour la. Mhm. ñu àndoon ak Macky Sall ñu bañoon a ànd ak moom. Macky Sall day gagné ba pare tamit c'est c'est quand même abusé Macky Sall porté leen à des postes de responsabilité. Mhm. téye leen ba fii. muy ñuy sentir ne am na mëbëtu teg candidature ñu commencé bëgg a contester sa candidature. Macky Sall bu amee fula da leen di dàq ci a Maymuna Maymuna non non attends Maymuna Maymuna Maymuna yaa ngi yàq waxtaan bi <laughs> non c'est vrai man doo mu poser question ñëpp ah. digg question bi mhm. te doo mu bàyyi ma tontu mu leer Sénégal lañ ne <laughs> dama ne dama ne àndu nawla la ñu ànd bu ñu li war a am et c'est la proposition que je fais la conférence des leaders dañu war a daje ñu waxtaan d'accord ci ni benn candidat la benn bokk yaakaar di am te raison yi tax yu bëri la mën naa ci revenir si vous voulez après ñu acte loolu bu ñu d'accordee ci loolu keneen dootul génn pour di wax waxu candidature parce que wax naa la léegi ni la on parle de Idrissa et il y a d'autres donne un exemple yéen gis ngeen ci presse bi yéen a ngi suivre même bu dul ci presse bi yeneen ak yeneen ñuy wax ni la gauche sénégalaise s'organise pour am un candidat de la gauche te ci biir Benno y a des de gauche y a des de gauche te parti yooyu dañu leen a soxla ci contexte bi ñu nekk pour ànd ak ñoom continuer à diriger ce pays donc il faut que Benno règle cette question là ñu waxtaan entre nous entre nawle euh, une question s'il te plaît même uh-huh. ñu d'accord ci ni dañu am benn candidat un waxuma tour nag un candidat non une question sur ça oui bu dee Macky Sall nee na dafa bëgg a dem. dafa bëgg dem cest à bu dee Macky Sall dafa am mébétu dem. Euh, dem deux mille candidaté pour deux mille vingt quatre. da ngeen koy naan non Benno Bokk Yaakaar dañu war a péncoo affaire bi. non lan moo war a nekk seen posture boo ma déglu woon bu dee Macky Sall dafa bëgg doo poser question boobu. waaw Macky Sall c'est le président de Benno. c'est notre président moom la ñu moom la ñu topp du dëgg. mais dama ne bu ñu waxtaanee ba ñu acté ni benn candidat la ñuy am mooy premier niveau bi mais on donne pas de nom ci moment boobu ñu toll parce que kenn ku def mën ngi am sa xalaatu bopp deuxième action bi ñëw mooy lan on demandera au président Macky Sall maintenant def ay concertation ak ñi mu ci war a waxal jàpp naa ne sax mag mu mel ni Moustapha Niass mag mu mel ni Aminata Mbengue Ndiaye mën nañ ko dimbali ci liggéey boobu benn candidat bi ñuy wax kan lay doon ñu ni peut-être Macky Sall la u Macky Sall ni amul Diouf la ou ñu ni tel la mais ya y a deux choses qu'il faut faire benn mooy bennoo nañu waxtaan à l'interne d'accord ni benn candidat la ñu am bu ñu réglé loolu ba pare ñu génne candidat parce que yow da nga mel ni da mel ni kuy invité Macky Sall à organiser sa mise à mort et son affaiblissement. comment tu peux dire ça. si au contraire. si moi je d'organiser benn. Macky ah Sall jour bu waxee <laughs> loolu. mais yow bonjour le cycle des chantages et de l'irrévérence non man nekkoon mission commandée non c'est de parler non c'est pour te dire que question yi ngay soulever. dafa sore ak man li may wax. man li may wax mooy luy organiser benno mais du organiser Serigne Mbacké si si si. le parti socialiste. liir nga liir nga le communiqué bi Idrissa Seck def tey. J'ai lu le communiqué euh, publié dans Sénégal, dans lequel il dit Boulen Tonto attaque. Feuille de route, leen jox te président coalition Maxal Momoko Djok. C'est ça qu'il a dit. Feuille de route, Biko Maxal Djok, moi renforcer les partis de Benno, renforcer l'unité et la cohésion dans Benno. la ce que Donc, loolu ça may wax meilleur. parce que boo bañee may mu na xam nga dañoo xam ne olof mën nga lekk bàyyi ko waaye bul wax bàyyi ko ñi ko séq ñëpp bokk benn dañu war a toog autour d'une ñu ni benn candidat la ñu am ñëpp d'accord ni benn candidat la ñu am buñ ca jógee nag nañuy waxtaan pour ni diw mooy candidat bi ñu def ko après